tey ñaan suñu boroom yokk yërmande ci moom lu am solo la di fàttaliku ñi nga xam ne jaaroon nañ fi liggéey euh, directeur général woyofal jar na wolofal woyefal diis na gan ci njariñ baax na ci ab sëriñ moo ëpp njariñ këriñ taala nee taalal taalal mu tàkk bu tàkkee leer bu leeree ba àgg ci nàññ dajeeg woyof tooy askan wi yëg ko kon woyofal yëg na askan wi ku yëg askan wi yàlla yëg la ku yàlla yëg yëgle la ku yàlla yëgle yéege la ku mu yéege nga yëg ne ay weer yu gàtt ngi ni ngeen ñëwoon fi mu am lu ma leen waxoon ngeen dikk Thiès ma ànd ak yéen wër ndax dama ni woon ku defal Thiès ma ni la jërëjëf keroog dama leen ne jërëjëf moo ëpp doole merci ndax merci mën nga ko wax te mënoo ko firi réellement te jërëjëf mooy jar naa jëf kon bu nit jëfee lu jara jëf ñu wax ko ne ko lii nga def lu baax la jaroon naa jëf kon ak lu manti xew euh, kii nga xamante ne sunu frère la bi sunu mbokk di sunu dëkkandoo Thierno nu Sall nee naa ko jërëjëf liggéey na ba wàcc wàcce nañu ko ndegam keroog ba nu àndee moom laa ñaanoon yenn yi ah ci ak ayam mu tàmbali dinaa ne ko jërëjëf te sàkku ci moom mu muñ parce que àdduna yàllaa ko tërale noonu yàlla moo ne cër maa koy joxe waaye waxul sax maa koy rocci dafa ni maa koy bip nga xam benn instant lay loolu du kenn du ci mucc kon na lépp dal euh, bu loolu weesoo liggéey bi ngeen di def mu jëm ci askan wi dafa am njariñ maanaam liggéey bu jëmul ci askan wi amul njariñ ndax Sénégal askan wi moo ko moom képp ku fi yor cër ak ndomba tànk ak jumtukaay bu mu manti doon ak jëfandikukaay bu mu manti doon du pour yow pour askan wi bis ba nuy tànn ci kanamu kilifa diine yi ci kanafu euh, njabootu euh, sunu papa euh, ma ne bis bi nga xamante ni ñi ngi may def maire ci kanamu kilifa diine yi ci kanamu njabootu sunu baay Souleymane Kanté ak ñëpp dama leen wax ni lii ngeen di ma takkal du ndomba tànk du médaille du raaya laxasaay la ngir danoo fas yéene doon bàyyi faalu dëkk bi danoo fas yéene doon surga dëkk bi kon bu ñu gisee ci nit muy liggéey lu mën a jariñ dëkk bi dañ koy dem daagaani ci moom lu mu laaj ñu def li ñu intéressé du kan moo ko def li ñu intéressé mooy na am ndax nag ñii ngeen di jox te amuñu woon dañoo war a am saa yu Sénégal daan manifester ngir courant bu coupé li tax daaw mu ci bokk dama daan wax dinaa sawar lool dem ci manifestation boo xam ne waa Ndakaaru yi am courant dañ koy def ngir ñoo xam ne ñu nga dëkk ci ab ruq te amuñu courant loolu mooy nation loolu mooy solidarité te lii ci la bokk ndax ñooñu nga xam ne ñoo ci jariñu bu ko kenn xeeb ndax kenn ku nekk ci ñoom rek ñun dey Cees sant nañu ci téeméer ak juróom fukk yooyu ñu tànn jour bu nu mënee fexe ba ànd kook ñeneen ñu am kàttan ba yokkulee nit ñu def ko noona noona noona ci fan yi dama di yëgal ne bu ma waxee fii lu jàmm ngeen baal ma ko te xam ne du yéene bi na kàddu bi moo mel noonu ndax dese na ma dégg wolof waaye bi ma leen sante bu pare di sant sunu chef du village muy Biram Diop ak doomam bi muy yebal teg ci waa Senelec ndax ñu ngi woon ci lindim goo xam ne yaakaaru ñoo mën a am courant rawante na man mi nga xam ne sama borom kër dafa génn àdduna ma nekk man donc xaw ma woon fu may jàppe sama bopp bay am xura mais nag ñoom ci seen bopp ñu nekk ci seen man-man ak seen yërmande ba ñun ñu amul doole ñun ñépp ñu am xura ñun waa Mbayeen ma xamal ne nekkoon nañu ci lëndëm ñu jële ñu ci nekkoon nañu ci ay jafe-jafe yu tax ndax ku sa moroom boo jaru bay njagu bay ah nañu nekkoon na ci suñu xel waaye mënuñu bi kon nag waa Sénélec ak ñi mu yebal ak seen seen ñoom ñépp ñoo leen di ñaanal te di leen ñaanal fu ñu toll yal na leen saa defar jàmm ju mat lu nekk ci son poos yi yal na ko saa boroom lu des si li nga xam ne moom lan ñu sunu courant bi ak leen ñu dimbalee yépp li des ci seen poos yi yal na barkeel yal na leen saa borom teg ci yoon bu jub wasalaam ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di ci jiital monsieur le maire di ci teg euh, monsieur le directeur général di ci teg directeur Senelec yépp ak directeur bu di nuyu di ziar sëñ Moussa nu jigéen di ko ñaanal yàlla yàlla yàgg suñu kanam di ziar mbooloo mi yëpp di leen wax ni rek tey yàlla dafa def ñu daje fi pour euh, ñaari mbir waxtaan ci Woyofal social bi nga xam ni ah moom la suñu directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé gis ni nekk na lu nga xam ni dina tax li nga xam ni moo doon tàqali nit ñi ci biir askan xëy na dinañ ci def ay jéego ndax boo seetloo. Euh, at bi passé monsieur le son excellence Macky Sall dafa wàññi woon courant bi de 10 pour cent Senelec nekk ci ay pexee mi aussi def ay yokk courant yu bëree bëri ci gox-goxaat yi waaye ki nga xam ne amul courant ci këram amul sax installation am naa yaakaar boo koy wax wàññi naa courant bi wala samp naa poto xëy na du ko saf moo tax ñu xalaat mu xalaat loolu nii nañ ko doxal ñi nga xam ne ñu ngi ci situation situation boobu ñu fexe ah duñ xëy na ñëpp nañ mën a defal. waaye nañ tàmbali te lu ñu tàmbali rek ñu ñu doxal ko def ko muy lu dëgg moo tax ñu tànn ci famille yooyu cinq def leen installation intérieure gratuite maanaam installé fii seen biir kër may leen branchement bi gratuitement mais aussi gunge leen pendant at weer bu dee ñu jox leen cinq 5000 francs wu crédit loolu nag bu ñu ko defee yàlla la ak ak Makhtar Cissé mi ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal yoonam te rafetal ko ak mboolem ñu ci profité rek ñu profité aussi ah délégation bi ngeen nekk muy centre ouest di lee région wu Thiès ak région wu Diourbel dafay nekk presque depuis 1999 ki nga xam ne moo njëkkoon nekk délégué régional tudd Adjuma Jonn ñu amoon xalaat boobu jox ko mu ni loolu rafet la nañ ko doxal moo tax ñu dippee ko salle bi nga xam ne réunion yi def yépp ci seen Senelec ci DSO bi fi lañ koy defee yu tuddee alstal bi ajuma jonn muy wane rek ñi nekk ci biir kër gi ak ñi nekk ñu xam ne nekk du ci biir kër gi yëpp benn lañu te képp ku def dara war nga am way sa tur war na fi nekk ba illaa yow mi diin loolu mooy tax ñun ndaw yi ñu mën a am ñu ñuy roy pour ñu tamit jéem indi sunu sunu sunu participation ci société bi parce que société bi dañoo dañoo gëm ni kenn ku ñu ko bëgg li ñu li ñuy xëy suba ba ngoon jot ci la ñu nekk lu demal société bi kanam ndax gëm nañ ni bu société bi demee kanam Sénégal jëm kanam àdduna bi jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatullah jël ci alal bi nga xam ni du xaalisu Senelec naam ci budget mais Senelec ko moom ndax ay œuvre sociale am la ñu ni bala ngay euh, yàkkal gan nga defar jox waa kër bi bala ñuy def yeneen œuvre sociale ci leneen lépp baax na jàppale école yi baax na jàppale hôpital yi baax na mais ñun comme ci wàllu courant nu ñuy yëngatu lu xool ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci réseau Sénélec yi te amuñu courant muy lu metti parce que ku ko amul sax amoo ko wala ku ko xamul xamoo ko mais ku ko xam te amoo ko moo gën a metti te ku ko xam te amoo ko mooy ku dëkk ci biir réseau bi sa kër ñaari kër yu am courant seq la yow amoo courant ndax amoo defee installation yi ndax amoo loo jënde compteur ndax amoo loo loolu moo gën a metti ndax ku ko xamul moom xamul mais ñu ko xam ni nag te amuñu ko ci ñoom la gën a metti moo tax mu bàyyi leen xel bu mu defee daaw gala am yàlla recette yu mu nu ci may nu toog nu xalaat ñëpp ñoom ñëpp nu d'accord ci duñ ma koy askane la rek mais xalaatu ñëpp la parce que su ma ko waxoon nun ma xalaat bi baaxul dama ciy génn mais ñëpp ñëpp ñoo ko rafetlu nu ni d'accord nun xaalis buñ ci am bi yëpp buñ ko def ci dara mais nun ko jël delloo ko ci askan bi utal leen ay abonnement yóbbu leen installation yi seen kër jox leen compteur yi may leen abonnement un an pour minal leen ko muy tekki nag ni du leen ciy tàggat ndax lu nu la installé sa kër muy quatre points lumineux yi maanaam ñeenti lampe yi ak ñaari prise yi soo ci yemee junne bi mënoo ko consommer ci woyofal waaw ñeneen ku ci sant mbay wala camara di ut lu xumb ba dem jëndi frigo il faut nga yokk loolu aussi baax nu leeral ko ci donc mais suñu yemee ci 4 points yu nekk installé yi 5000 francs bi moom woyofal bi mënu ko consommer du du ko mat wante nag ku yokk yeneen appareil il faut nga xool nag si sa coobare bopp nan ngay fexe aussi looloot ba nga ba nga fay loolu yéen waa agence bi Moustapha day baax ngeen expliqué ko aussi ngeen koy jox ñi ñu bañ yaakaar ni du ñuy branché rek dem jëli ventilateur dem jëli frigo jëli télé mu doon 5000 francs du mën a nekk 5000 francs bi pour soo yamee ci lampe yi la ak ñaari prise yi nga xam ne mën na chargé téléphone mën na def leneen dina des doo ko jeexal mais soo defee yeneen appareil nag da koy consommé il faut fay mais da fay lu tolloog sa doole rek moo tax woyofal bi am solo ñuy rafetlu nag kàddu yu fi yu fi jub yëpp muy lépp lu rafet di lépp lu baax man tàmm ma lu may wax lu bëri ci électricité ndax dama jàpp ni mbiru électricité bi lu ñuy jëfe la rek ndax communication bu bëri bee wax bu bëri bi du ko jar su baaxee clients yi ñoo koy yëgal seen bopp ñoom ñoo naan baax na su làmp yi coupé ñoom ñoo koy xamal seen bopp xam ni coupé tul wax ni xëy na nu mu daan coupé coupé ko tane na mësuñu waxeet nag ni duñ fi def lu kenn mësul def ndax loolu ku dul nit rek yaa koy wax wala da nga xam lu kenn xamul wala nangam nangam wax naa ko keroog sama xarit bi Xaadim maa ngi koy gërëm ak communicateur traditionnel yëpp su ne courant zéro coupure rek nee ko damay tiit ndax courant zéro coupure moom dafa amul fenn. lu am kay président waxoon na ko boppam keroog ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax li yëpp moom la feccu liir su neexee ndey ji moo tey ci mbaggam Senelec société le société nationale société publique la état du Sénégal ak CDC nga xam ne état bee ko moom ñoo ko moom cent pour cent donc lépp lu ñu ci def dafa fekk ni état bi moo ci def loxoom à travers président de la république digale ko fital nu bu nu ñamee initiative bu nu jël mu ñamee ba nu mën àgg fi nu àgg fi nu àgg tey fu nu àgg tey ci Senelec mooy lépp lu ñuy wax ci wàllu production yàlla suturaal nañu ci dimbale nañu ci fu ñuy toggee courant bi togg nañu ci lu doy ba mën ci mën ci maye mooy woyofal bi nuy maye mais mën ci jaay donc ça veut dire que def nañ ci ay jéego mais jéego yooyu du jéego yu war a taxaw du jéego yu fa war a yem parce que du ñu war continuer di defar yeneen centrale ndax produit ndax demande bi day gën di yokk programme boobu nu tëral nañ pour def yeneen central suñ ko taxawalee wala doxaluñ ko nu ko war doxal du ñuy dellu fu ñu jóge woon rek mooy ci te loolu bu kenn kenn ñaanu ko yàlla kenn bëggu donc les projets yu nu war a def ci production il faut nu ci mais lu dëgg dëgg dëgg te moo tax coupure yi du mën a ñàkk mooy réseau yi daf dafa màgget yi yàgg yi bon ñu defaree ko matériel bu baaxul ci loolu nun nekk nag di saytuwaat di ko defaraat du ci war duñ ci mën rattrapé nu rattrapé ko sécuriser ko bokk na ci ni ngeen wax léegi ci marché yi ñuy gërëm waa UNACOIS ci partenariat bi parce que lu jiitu ci ci liggéey bi mooy sécurité nit ñi bala ngay am courant na nga ko am ci condition de sécurité yi nga xam ne ñu koy liggéey ñi daanu nekk ci sécurité mais yow itam mu koy jëriñoo bi di nga nekk ci sécurité te loolu fiabilisation ak sécurisation installation yooyu Senelec am na ci programme bu rëy bi nga xam ne appel d'offre yi lancé nañ ko banque mondiale financé ko bu toll ci 4 milliards bi nga xam ne su sottee jéego yu gën a baax yu nu nekk yi daan ko def même woyofal biis nu mu tuddee ko woyofal social banque mondiale roy nu ci roy nanu ci mooy nangu na nun ñu ngi toll suñu doolee jël ay ñetti téeméer ñeenti téeméer juróomi téeméer foofu la doolu Senelec toll mais moom dooleem toll na ci mu ni bu mu ko gisee mu rafetlu ko mu ni dinu accompagner pour nu jël euh, fanweeri junni ak juróom-ñaari famille ci Sénégal pour defal leen muy 37000 familles donc ñun ñu ngi toll ci cinq 500 familles jëm 1000 mais banque mondiale moom nangu na financé fu mu nekk nii 37000 familles ci ci mën naa wax lu ñuy wax woyofal social parce que même procédé bi lay doon installation intérieure rek yëpp su boobaa ñun ñoo koy def te programme boobu nag ñu ngi ci bëgg liggéey ak Procolec Procolec di démembrement daanaka ci senn Sénélec sunu mag sunu xarit di doomu Thiès wax naa ko léegi Malick Diallo nekk fii ci jotaay bi jiite ko donc am naa yaakaar ne xëy na waa Thiès daan ci bareel incha allah <laughs> yal na ko yàlla defee noonu mu des nag lu ma waxoon sànq rek ci ci kaw jotaay bi yàgg